ab arrestation eh, daal di eh, jëm eh, ci kii di docteur Babacar Niang Babacar Niang nag buñ ko waxee xel yu ci bari dañuy dem ci suma assistance suma assistance boobu sax buñ ko tuddee rek xel yu bari dina dem ci kii di Ousmane Sonko ginnaaw bi nga xam ne bii Ousmane Sonko def na fi lu toll ci ñett ci ay fan ba laay fan bu mujj bi sax Ousmane Sonko mu ngi ko amee ci suma assistance boobu kii di Babacar Niang nag ginnaaw bi nga ne bii ñii di takk der yi doon nañ ko wër tey nag dañ koo mujj jàpp ñu ngi ko jàppee nag ci benn dëkk bu ni Aliou Ahmadine Ndiat ah, mu nga nekkee fee ca li nga xam ne bi nag moo waral arrestation bi ba fi mu toll nii ñu ci bari jotagoon ci xibaar bu mel noonu mais daal lu mu ci man di doon ki nga xam ne bii mooy Ababacar Niang jàppe nañ ko fee ca Medina ñett mu nga nekk ca euh, Saint-Louis moom nag ginnaaw biñ ko jàppee foofu la ñu ngi ko war a andiwaat fi nga xam ne bii mooy ca Dakar Zenf SN 221 ak Live Buzz TV dina leen toppal mbirum kii di Ababacar Niang nekk ab docteur bu mag yor benn clinique bu ñuy wax euh, suma assistance